di sant sëñ bi nga xam ne moom mu yore lépp loo xam ne liggéey la ci centre ci université euh, Cheikh Amadou Bamba bi nga xam ne sëñ sëñ bi sëñ Mountakha moom moo ko tàmbali woon mu nekk projet mu nekk aussi euh, vision ci éducation de manière générale au niveau national donc président sañ Sall ñoom aussi vraiment amoon yéene pour jàppale ko ci mooy maanaam tàmbali fi lu ñu woowee les centres départementaux Je crois que le président avait lancé depuis le début un vaste programme de construction de 45 départementaux au niveau des au, au niveau des 45 départements du Sénégal donc mu ne woon nag léegi nañ ko tàmbalee Touba mu nekk un centre de référence boo xam ne dina am 15 bâtiments mais aussi am euh, cinq filières yoo xam ne dina mën a permettre ndongo yi bu ñu paree jàng daar ñu mu leen tàggat ci wàllu métier dina donc centre boo xam ne dina dina mën a accueillir junni apprenant ci filières yoo xam dina dina tourner autour de de l'agroalimentaire, de l'artisanat, mais aussi de l'informatique. Donc c'est un centre qui va bu xam ne am na 15 bâtiments mais aussi euh, pour un coût de 2 milliards 500. léegi vraiment gis nañu vraiment avancé na c'est donc pour nous de remercier l'équipe bi nga xam ne mi ngi fi yëpp ci euh, ci ndigalu sëñ bi nga xam ne tey moo taxaw di coordonner liggéey bi bi ñu taxaw taxawalee bi ñu toogee tey ji réunion gis nañ vraiment mbir mi am na benn genre implication de de tous les acteurs. tey ji as waa assainissement ñu ngi fii waa Ageroute ñu ngi fii donc c' est une c' est coordination combinée boo xam ne ça va aboutir vraiment à un travail intelligent